أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى وعلى آله وصحابته أجمعين mbokk yi خبنتني xamantene bi ñom ñoy top احمد ياتي bi ñu ngi leen di nuyu ci baatu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu di leen ziare bu baax a baax a baax di ñaan yàlla yàlla defal ñu jàmm te yëwanal suñuy mbir di ñaan yàlla def jàmm ci réew mi def ko ci continent bi def ko ci àdduna bi yëpp rawatina. defal ko jullit yëpp fu jullit mën a nekk ci àdduna defal ko doomu aadama yëpp waaye rawatina fu jullit mën a nekk ci àdduna yàlla defal ko jàmm waa ñu ñëwaatoon ci comme niñ ko baaxoo di def muy waxtaanee lu jëm ci histoire ak wàllu civilisation nga xam ni bind yi weesu ni nga waxtaanee woon civilisation te ñu dellusiwaat nag ci histoire dañu dellusiwaat ginnaaw ba ñu waxtaanee njëriñ ñi nga xamante ne bii nekk na ca. beneen njariñ boo xamante ni bii dañ koy tudd mu nekk njariñ loo xam daf ca am solo lool muy pour a xam suwaaru doomu aadama ci boppam waaw euh, ginnaaw ba ñu njariñ ñaari njariñ yi nga xam ne moo weesu ci njariñ yi nga xam nañ ci mel nañ dañuy tey waxtaanee njariñ boo xam ñetteel la ca mooy njariñ loo xamante ni bii dafay def ay mandarga yoo xamante ni dafa am solo lool ci histoire doomu aadama nga xamante ne bii njëriñ loolu dañu koy jàppee mu nekk njëriñ li nga xam ni moo gën a am solo ci meññant bi nga xamante ni bii histoire am na ko su boobaa loolu dafa yelloo mu sàkk loolu pour xam ko pour jàng ko pour settantal ko muy mel ni ban ci mooy doomu aadama euh, kaña la histoire am tàmbali ak yan évolution ñoo ci am ak yan mandarga mooy yi nga xamante ni bii ñoom ñoo am solo boo ñu xoolee doomu aadama kañ la sosu loolu nëbbuwul ci kenn amul kenn koo xamante ni dafay werante dafay wuute te ni doomu aadama bi nga xam ni moom la yàlla njëkk a bind mooy sayiduna aadama alayhi salaam moo tax ñu ñuy waxee doomu aadama ñëpp ay doomam lañu nga xam ne loolu mooy li nga xamante ne mooy ki yàlla njëkk a nga xam ne alquran saxal ko wax ko ci bërëb yu wuute ci saare yi nga xamante ni bii ñoo nekk ci téere yàlla bi waaw nga xam ni bu fekkee ni ku gëmul alquran moom mën naa dem sukkandiku feneen kooku loolu moom moo xam problème la waaye ñun ñi nga xamante ne bii ay jullit lañu nga xam ne li gën ci li nga xam ne moom la ñuy gëm mooy alquran ci moom lépp lu mu ñu wax dëgg la lépp lu mu ñu weddil du dëgg loolu la ñu jàpp ñun jullit te loolu mooy wareefu jullit foofu la ñu sukkandiku alquran xamal ñu ko yeneeni téere bind nañ ci wax ci saxal loolee waaye ñun bi ñuy gën a soxal mooy alquran mooy ki yàlla njëkk a bind mooy sayyidina Adama alayhi salaam moo tax histoire boobu dafa nekk loo xam dafa jokkoo muy isam histoire bi nga xam ne moo fondement euh, sidna Adam mi nga xam ne moom la njëkk a bind muy nekk loo xam dafay jokk ci histoire yonent yi moom mooy yonent yi nga xam ne moom moo jiitu ci la yàlla bind waaw ni ko noonee moo loolu moo continuer ñëw ba jóge ci seydna adam alayhi salaam ñëw ba ci seydna nuux alayhi salaam ñëw ba ci yonent bi alayhi wa sallam moo tax kon ñu yittewoo xam istuwaaru yonent yi nga xamante ni bi ñoo jiitu woon ki yàlla njëkk a bind seydna adama alayhi salaam la adama alayhi salaam la woon kon moo tax loolu dafay dellu ci ñu yittewoo ci njëkk ko yittewoo ci xam istuwaaru doomu aadama yi muy muy tàmbalee ci xam ci istuwaaru nga xamante ni bu ñu waxee sànq ca tàmbalima ba doomu aadama kañ la sofu kan la ñu njëkk a bind bi seen naa aadama yan évolution la def mooy ñoom bi ñu ñëwee dañ ci def ba bi mu demee yonent yi ñëwaat ci ginnaawam ba ñëw ci yonent yàlla Nuux alayhi salaam ya mu def yegg si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu moo tax ko ñu yittewoo mandarga bi gën a gën a gën am solo gën a am importance ci meññantam histoire mooy xam histoire yonent yi nga xamante ne bii ñoom la yàlla yónni woon daa ngi dégg moo tax loolee dañuy yittewoo ci jàngat ko yittewoo ko pour xam ko euh, amul benn sikki sàkka ci ñi nga xamante ni moom lañu xam ci histoire yonent yi alayhimu salaam ñoom amul benn sikki wa sàkka ci woote gi woo nit ñi ak jihaad giñ doon def mooy jihaad gi mooy jihaadu nafs la wala jihaad wàcc terrain bi la yooyu yëpp ci fexe mission bi nga xam ne yàlla jox na leen ko pour ñu tasaare ko ci doomu aadama ya ñu dajeel ak muñ ga nga xamante ni bii dañu ko doon muñ ci coono yooyu ñu ca daan daj ak lu ñu daan dékku wax ñu ñaaw ñu daan teg seeni der dañ ci daan def ak yëpp ya daan dal seen kaw nga xamante ni lii nit sa ña leen yàlla yónni woon ci ñoom lañ ko doon jële loolu amul benn sikk sàkk boo xamante ni bii loo xamante ni bii loolu kenn weddi wu lu amoon la ak seen position bi nga xamante ni bañ dañ ko amoon ci taxawaay taxawaay ci def woote bi nga xamante ni bii yàlla yónni woon ne leen ko pour ñu jotal ko waaye it tamit euh, xam li nga xamante ni bii yàlla yónni na leen ko ñu gëm ko ñu yónni leen ci ñoom ñooñu seen mujj mooy ñi nga xam ni ñoom yàlla jël na ay yonent yónni leen te ñoom ñooñee seen mujj ak gëm giñ ko gëm laa leen tey fekk ci dëggal yonent yooya moom loola amul benn sikk saak boo xamante ni yonent yi xamoon nañ loolu waaye it yonent yi xamoon nañu mujjug ñi nga xamante ne bii dañu leen weddi ci lu leen yàlla yónni alquran andi ko wax ci ay détails yu bari ci yonent yàlla Saalix ak yonent yàlla Ibrahima alayhi salaam yonent yàlla Nuux ñëpp yonent yàlla Luut ña leen weddi woon seenu mujj naka la demee loolu amul benn sikk sàkk boo xamante ne bii nit ñi xamuñu ko loolu mooy li nga xamante ne bii mooy mandarga bi gën a euh, dafa feeñ lool ci ñaar yooyu mooy xam mujjub ñi nga xamante ni bii gëmoon nañu yonent yooyu ba topp leen waaye it xam mujjub ñi nga xamante ni bii weddi nañu yonent yooyu ci la leen yàlla yónni ñooñu seeni mujj na mu demee ak coono ya teg ya dal ya leen ca fekk loolu dafa nekk yoo xamante ne bii yu rëy a la ci histoire doomu aadama moo tax loolu moom la ñuy tuddee mooy mandarga bi nga xam ne mooy fondement bi ci xam histoire doomu aadama ba xamante ne bi yàlla bind na ko mu jógee ci sayyidna Adama alayhi salaam ñëw ba ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon buñ doon laaj yàlla ki mu njëkk a bind mooy alayhi salaam évolution yi nga xamante ne bi am na ci bindeefu doomu aadama yàlla da ko jaarale ci yonent yi yonent yi di ñëw di continuer yonent bu ñëw ak yam ñu andi boole ko ya fi nekkoon ña fi nekkoon am lu mu cay dolli wala am ñu koy changé loolu mooy continuer moo tax moom la ñu tuddee islam moo tax boo demee ci alquran mu wax inna diina inda allahi al islam diina buñ ko waxee ci yàlla mooy islam islam yonent yëpp ci lañ tënkandiku yonent yooyu yëpp nag doxin bi doon doxin loolu moo ñuy dimbali pour ñu mën a xam histoire doomu aadama ci évolution yi nga xamante ne bii am na yooyu moo continuer mu di ay évolution ma jóge ci Seydina euh, ñëw ci yonent yi di jaar ci ñoom di jaar ci ñoom ba yegg si ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaa moo tax euh, ci xam euh, histoire yonent bi sallallahu alayhi wa ak xam sharia bi nga xamante ne bii moom andi na ko mu dindi yi nga xamante ne bii ñoo fi jiitu woon ak ñu ci changé bari nga xamante ni bi mu ñëwee moom wooteem dafa nekk loo xam dafa matale nit ak jinne loolu mooy caabi fondement bi nga xamante ne bii moo ñuy may ñu xam naka la ñuy jaamoo yàlla ca dëggantaan waaye loolee moo ñu mayoon ñu xam naka la ñuy appliquer yi nga xam ni yàlla da ko wàcce ci ki nga xamante ni bii mu kallaf bi nga xam daf ko gëm yaa ngi dégg yooyu moo may ñu xam yi nga xamante ni bii moo war ñu xam ay meloom aki waxam moom yi eh, nga xamante ni bii dafa nekk ci eh, melo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo nga mën a ci yonent yi ko jiitu woon ak ay waxam moo la joxit yi nga xamante ne yonent yi ñu jiite woon ak yonent yi ko jiite woon jaaral nañ ay xam ne alxuraan andi na ko ak yi nga xamante ne bii ci moom la ko yàlla jox moo yeggaleen ñu ko ak ay melo yoo xam ne nekkoon na ci ñoom moom sallallahu alayhi wa ak ay décision yoo xamante ne bii jëloon nañ ko jëloon na ko ak ay njariñ yoo xamante ne bii dañ koo jëlee ci yoon yi nga xamante ne bii dañ koo génnee ci ay génération génération génération bi nga xamante ne bii. ba ñëw ba yegg ci yoon bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne yàlla daf ko wax ne ko ci alquran yow ñi nga àndal sa xede kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas kon bu ñu njëkkee ci almaalam al awal mooy xam taarixu yonent yi buñ ci jógee dem xam ci taarixu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo nañ ko jagale ba mu mën kese buñ jógee yonent bi daal dem ci xam maalamu thalis bi mooy xam xulafaa rachidin mooy ñi nga xamante ne bi ñoom ñoo wuute yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax ñooñu tam pour xam leen xam seeni mbir xam seeni jikko xam seen histoire xam taarixu euh, xam histoire première génération bi xam ñoo nekkoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam après xam ñi nga xam ne ñoo top ci ñoom xam ñi ci toppaat maanaam xulafa rachidin saxaaba yi saxaaba yi bu ñu demee ba jeex taabiina yi euh, taabiina yi après ñi nga xamante ni bi ñoom dañoo ñëw tamit ñoom saxaaba yi seenu liggéey seenu seenu seenu njàmbaar seenu taxawaay ci tasaare diine ci tasaare jikko ju rafet yoo xamante ni bii sallallahu alayhi wa sallam nekkee woon na ko ak yonent yi ko jiite woon nekkee woon nañ ko ñoom ñu nekk ci ba bañ ci jógee taabiin ñëw ñëw ca nga xamante ni bii ñoom ñun ñoo dund ci premier siècle yi nga xamante ni bii ñoo gën a jege yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu siècle yi nga xamante ni bii baaxoon nekkoon na siècle yi gën ci siècle ci appliqué charia yàlla bi nga xamante ni bii noonu la ko yàlla santaane ci noonu la ko bëggee waaye ci rey seen bopp ci tasaare lislaam ci suuf si yëpp moo xam ci sowu la wala ci penk wala sowu ci nuñ ko mën a defee ci tasaare alquran ak fexe ba alquran ñu bind ko fexe ba tasaare sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fexe ba tasaare ay jeexit yoo xamante ni bii ci ñoom ñu baax ñi la jógee nga xamante ñëw na ci xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ñuy dénkaane ba naan aleykum bi sunnati wa sunnati alxulafaai arrachidina almahdiyina min baadi maanaam na ngeen taqoo sama sunna man sallallahu alayhi wa sallam ak sunna ñi nga xamante ne bii ñoo ñëw sama ginnaaw te wuutuma te tegu ci yoon wi nga xamante ne bii yoon wi laa leen jàngaloon bàyyi leen loolu tamit dafay jaajowoo ñu xam ko buñ jugee ci maalam boobu dañuy dem ci maalamu rabia bi foofu mooy foofu dañuy fexe xam euh, istuwaaru borom xam-xam yi ak istuwaaru ñi nga xamante ni bii mujaahiduun lañ woon doon joxe seen lépp ak ay duaat lañ woon doon woote nekk ci woote jëmale ci lislaam ñooñu xam seen histoire te yittewoo ko su boobaa dafa yittewoo day soxla woo ñu yittewoo xam istuwaaru borom xam-xam yooyu ak mujaahidiin yooyu ak saalihiin mooy nit ñu baax ñi nga xam dañoo sell lool ba seen lépp lu ñuy def yàlla képp doom moo tax ñu koy def ak ñi nga xamante ni bii dañ doon jihaad ci yoonu yàlla moo xam dañ doon wàcc ci terrain bi di rayante pour diine taxaw wala ñi nga xamante ni bi dañoo jël seen dund yëpp fas yéene koo jàngale diine mooy xëy toog ci bërëb di jàngal nit ñi diine wala dem te jàkka ja di jàngal nit ñi diine daa ngi dégg eh, jooju seen dund lañ koo jël na ñoom loolu lañ ko sacrifié yaa ngi dégg pour mën a pour mën a taxawal sharia yàlla bi tasaaroo nga xamante ne bi dañ koy tasaare bi seen nit nga xam ne loolee dafa nekk roy waay boo xam dafa rafet lool nekk exemple boo xam dañ ciy roy ci bépp jullit boo xamante ne bi da nekk ci jamono bii ñuy bu ñu demee ci maalamul xaamis bi moom foofu dañuy fexee xam jeexital yi nga xamante ne bi islam def na ko ci ah boo kon bu ko defee kon ñu doyloo loolu mooy li nga xamante ne bi moom mooy ñu taxaw foofu quinze minutes mat na waxtu yi dañoo njëkk buñ ñëwaatee ci beneen leçon yeggalewaat yi nga xamante ne bii ñoom ñoo ci wax a toog wa aaxiru da'waanaa alhamdulillahi rabbil aalamiin da ci baax ñoo xam ne ci mbaaxu yàlla da ci baax ñoo xam ne suñu matadi la wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa